لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kon incha allah ci ay fanweer ak juróom-ñeent ci suuratu fusilat moom la ñuy dal tey di fàttali it ne ñu ngi ci juróom-ñaareelu fan ci li nga xam ne nii moom mooy weeru rabiul awal ci 438 mu dëppoo li nga xam ne mooy 7 décembre bi di ñaanit suñu borom subhanahu wa taala mu wërsëgal ñu la nga xam ne nii mooy déglu aayay borom bi nañ ko war a dégloo gannaaw ba it ñu topp ko nañ ko war a toppi dañ xam ne alquran ji bi ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala di wàcce jubluwaay ba gën a rëy ba ci jullit di war a jëkk a taxawee mooy la suñu borom wax ne kitaabun anzalnahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayaati mooy téere la boo xam ne la tax mooy jubluwaay bi li yudabbaru ayaatihi ñu koy settantal settantal ba it lay njëriñ ba ciy jóge mooy nga fexe ba mu digal la tere la lam la digal nga def ko lam la tere nga bàyyi ko loolu kon mooy jubluwaay bi gën a mag ci alquran kon insha allah ñu fàttaliwaat ne ñu ngi ci aaya fanweeri juróom-ñeent fi suñu borom di waxee ni wa min ayatihi bismillah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu boroom subhanahu wa taala mu ne wa min ayaatihi bokk na ci ay kawtéefam annaka tara al arda xaashi'a mooy da ngay gis suuf mu nekk ajulu toroxlu fa ida anzalna alayha al maa heure bu ñu wàccee ca moom ndox ma ihtazza bu ko defee mu daal di yëngu warabat mu daal di funki daal di jóg inna alladi ahyaaha ka nga xam ne moo dekkal suuf soosee day la muhyil mawta mooy aji dekkal ña dee woon innahu ala kulli shay'in qadir mooy ki nga xam ne lépp day am na ca kattan inna alladina yulxiduuna fi ayatina ñi nga xam ne day dañuy jéng ci sunu aaya yi laa yaxfawna alayna alayna ñooñu day nëbbuwuñu ci ñun afaman yulqa fi naar amoon ndax ki nga xam ne ëllëg dañ koy jël sànni ci sawara xayrun am man yaati aminan yowma alqiyaama ndax kooku muy ka gën wala ka nga xam ne day ñëw ànd ak kuuri ci ànd ak dal yowma alqiyaama kon nag i'malu ma shi'tum ay yéen nit ak jinne def leen lu leen neex waaye nag innahu bima ta'maluna basir xam leen ne moom yàlla day li ngeen di jëf yépp mi ngi koy gis inna allazina kafaru bi zikri lamma jaa'ahum ña nga xam ne dañoo weddi fàttali ji ba mu leen dikkalee wa innahu la kitaabun aziz doonte ne moom day téere la bu tedd laa yatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi neen du ko dikkal ci la nga xam ne mooy diggante loxoom ya mu ngi ci jublu mooy la ca kanamam wala min xalfi wala ca gannaawam tanzilun min xakimin xamid lii day ak wàcce la ko bawoo ca aji xereñe ga muy suñu boroom ki nga xam ne cant yépp mooy aji ku ñu sant ka di suñu boroom jalla wa ala ba tey mbokk julit suñu boroom subhanahu wa taala gisuñu ko ca la shakk ni kenn du ko gis ci kaw suuf doonte ne ni am nañu yàlla baaxe gis ko ñàkk gis ko daanaka amul benn jeexital ci seen ngëm ay yàlla dogal na ñu xam seen boroom ci ay kawtéefam suñu boroom wàcc wan ñu ay kawtéefam ci kaw asamaan wan ñu kawtéefam ci suuf bokk na ci loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy wax léegi nee na bokk na ci ay kawtéefi borom bi da ngay gis suuf mu nekk aji toroxlu ay wow koŋ soo demoon tey lu mel ni moo demee nga dem ci àll bi da ngay fekk lépp mi ngi wow sunu mag ñi léeg-léeg bu dee tool yi dañuy daal di koy gajji daal di koy ruuj lakk la fa nekkoon ci ñax yépp lépp tàlli waaye suñu borom yàlla ci kattanam su dee dafa wàcc ab tawam lan lañ daal di gis mooy suuf soosee daal di commencé yëngu suuf soosu commencé jóg suuf si commencé meññ nga jël tey boo demoon ci àll bi ñii ji gone àll moo ko xam am na lu ñuy jëfandikoo mooy larmet larmet boobu dañ koy dóor ci suuf gàjji loolu nga xam ne moom la ñuy yëkkati boo ko doon peser dana ëpp cent grammes nga gas suuf si nga jël benn benn pepp dugub boo xam ne matul zéro un gramme nga def ci pax bi jëlaat cent grammes yi teg ci kawam mais gars yi lan mooy xew lii xew mooy suñ ko tegee fan yu néew ñu gis pepp dugub boobee bëtt na cent grammes yooyu ba génn ci kaw te yow boo ñëwoon xale bu ndaw laal cet bi rek mu damm ban puissance moo tax mu mën a bëtt suuf boobu ba génn suñu borom ne suuf si moo yëngatu may ko mu jàll am déet ñu ngi naan wal ardi zaati sada mooy xar may ko mu jàll tey bi yàlla may doomu aadama mu mën a enregistré dañu gis scientifique yi di jël masalan benn gàncax ci suuf ñu filmer ko pendant un mois gannaaw ba gaawul film bi day gis suuf si ni muy yëngatoo day gis gàncax gi ni muy génne di def ay gesticule gesticule ba baa muy màgg loolu mbokk da ngay gis ne ndax bu amul beneen kattan bu nekk ca kaw loolu loolu mën naa sotti ndax gàncax googu war na mën a meññal boppam ndax suuf soosu war na mën a dekkal boppam déedéet suñu borom nag ne ki indi lii mooy pepp dugub bi mu génne ko màggal ko gannaaw ba meññalaat ci moom la ko soob kuy mooy dëkkal ak yi dee ndax gaa yi di war a sa ci sikk sàkk déedéet loolu moo tax ba mbokk jullit doomu aadama yëpp bis bu ñu deeyee ñi nekk ci biir suuf yëpp yàlla xam na leen cent milliards la deux cent milliards la yàlla xam na ko bis bu indee taw bay tax ñu dekki ñëpp dañ bëtt suuf daal di génn dekkiwaat loolu benn sikk sàkk amu ci borom boobu nag subhanahu wa taala ni mooy ki am kàttan ci lépp te it loolu julit da koo war a gëm mooy inna allaha ala kulli cheyin qadir sa borom yàlla dafa am kàttan ci lépp tëliwul dara ni ñu noonu naam kon sunu borom subhanahu wa taala loolu mu wax foofu ne muy ki am kàttan ci lépp mu wëlbatiku nag di wax ak ñi nga xam ni ñoo weddi ay aayaam yulxidoon lahd mooy jeng boo xoolee ci ñi ñuy suul yonent bi alei salaam daana wax ni li gën ca la ñuy suule mooy lahd ca mooy gas ba mu xóot nga daal di jël ci wetu bàmmeel bi gasaat mu jëm penku am na ñoo xam ne aayay borom bi yulxiduuna fi ayatina benn gëmuñu ko weddi nañ ko wala ahakay gëm nañ ko waaye dañ koy firi nam leen neexe te bi alquran di wàcc mi ngi ci jublu woon yahudi ak nasaraan yi nga xam ne la yàlla waxoon ci seen téere yépp ña ngi ko doon jël di ke firi nam leen neexe mi ngi noonu suñu borom yàlla nag nee na ñu mel noonu day réeruñu ma mu jox ñu benn misaal nit ñi day bu ñuy ñëw yowmal qiyaama ñaar la ñuy doon ñaari catégorie benn bi mooy koo xam ni dañ koy jël sànni sawara parce que suñu borom waxul kuy duggi sawara waaye ku ñuy sànni sawara mi ngi noonu kullama ulqiya fiha fawjun heure buñ fa sànnee mbooloo ndax ki nga xam ne bu ñuy yowmal qiyaama yàlla da koy atte ba pare malaaka yi njoñ ko sànni sawara ndax dana yem ak ki nga xam ne buy ñëw yowmal qiyaama day ànd ak dalam lu waral loolu mooy jàng nañ ci sunu gannaaw dars bi passé malaaka yaa ngi dal ci moom inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika ala taxaafu wala taxzanu kon moom mi ngi ànd ak dal sunu borom yàlla atte ko mu ànd ak dal tebbi aljanna ndax ñaar ñi dañ yem abadan du ñu yem loolu nag moo tax suñu borom yàlla daal di nañu lu leen neex def leen ñaari résultat yi rek moo leen di xaar lu leen neex nag def leen loolu mbokk di carte blanche boo xam ni nit ak jinne la ko yàlla may amma jant bi weer bi bàyyu may lu mu mën a doon lépp suñu borom da leen di fixé te la nga xam ne moo ko neex amma bu dee nit ak jinne suñu borom da leen a tëralal ñaari yoon najiday bii moo jëm àjjana bii moo jëm sawara may la xel wàcce la téere ne la nag léegi lu la neex defal i'malu ma shi'tum bu la neexee taxaw ne may yàlla comme ni ko Firawna ne defe woon bu la neexee dem rendi téeméeri nit du tax yàlla faat la ci saa siri am na délai bu mu la wutal waaye nag bis mi ngi ñëw xamal ne dara rëccul ci liggéey def baax nag bon na tey jii dégam suñu société yi ñooy dem lu mel ne SONES masalan wala SDE bi ngeen xam ñëw ubbil la fak tegal la benn compteur ne la nag mi ngi noonu ndox maa ngi nii de lu la neex consommé am déet lu la neex consommé consommé jusqu'à cent mille jusqu'à cinq cent mille yaa xam consommé lu la neex waaye nag fin du mois facture baa ngi ñëw de am déet mi ngi noonu demal jël ligne Sonatel bu la neexee fanaanal ci internet bi fanaanal international lu la neex consommé consommé ba un million deux millions yaa xam waaye nag facture baa ngi ñëw de am déet mi ngi noonu naka noonu suñu borom yàlla ne ne i'malu ma shi'tum lu la neex def leen waaye innahu bima ta'maluna basir li ngeen di def lépp nag mi ngi jàkkaar la moom di koy gis loolu mbokk lu tiit lu la buur bu toll ne yàlla tëkku la ne la aha waaw lu la neex rek defal mi ngi noonu borom kër sax bu ko waxee njabootam ñu war a tiit xam leen ni li ngeen def mi ngi koy gis te loolu it mooy al ihsaan bi jurit di war a yëg mooy xam lu mu mën a nekk yàlla subhanahu wa taala mi ngi koy gis borom bi daal di wax loolu wëlbati ko nag ne ñi weddi sama pàttali gi di zikr donte zikr boobu borom xam-xam wax nañ ci ñaar fukki wax ala kulli xaal ak fàttali la waaye luy yëkkati aw tur la innahu la zikrun laka wa li qawmik da ngay gis ni la ci gën a am solo mooy alquran moo lay fàttali lan mooy sa warugar sa digganteeg sa borom sa digganteeg say morom ña ngay jëflante lépp alquran dañu ma la koy fàttali ñooñu nga xam ne nag ba leen alxuraan dikkalee dañ koo weddi te itamit ñu mel noonu la yàlla di mbugal yowmal qiyaama koo xam ne alxuraan musu ko dikkal ku mel noonu am na beneen atte bu yàlla di jaar ak moom borom bi nag ne téere bii day téere bu tedd la te mbokk jullit xam leen ni lépp lu ñuy jàng ci kaw suuf alxuraan moo ko gën a màgg alxuraan moo ko gën a tedd doonte ne nii léeg-léeg seytaan yi ngir nax doomu aadama da koy dugal ci leen kenn xamul am na ay téere yu nit ñi jàng suñu réew dañ naan sëñ diw de la baaxoon ci alxuraan yépp def na ko ci téere yooyee ba tey da ngay gis li ëpp ci nit ñi dañuy toog ay lu yàgg téereb yàlla bi duñ ko sax itteewoo amma yooyu nga xam ne dañoo jàpp ne bind nañ ko ci lépp luy secret alxuraan ma nga ca moom la ñuy jàng bu dégg ba ci sunu mbokk Mouhamed Sy bi xam nga mi ngi ci jàkk jëm déet mais na fekk na ñaari nit ñi toog kii mi ngi yor alquran kii mi ngi yor téere ci téere yooyu may wax mu ñëw daal di nuyoo kii yor alquran ji ne ko yaa ngi ci téere bu mag bi de mu ne ko déet téere bu mag bu magee kee yor xoolal ma loolu loolu mbokk mooy mbir bi su ko defee kon ñu xam ne amul lu ñuy jàng ci kaw suuf lu ñuy mën a méngale ak alquran heure boo méngalee dara ak alquran loolu ak kéeféer la heure boo demee ba yëg ne am na lu gën alquran loolu ak kéeféer la loolu ñu bàyyi ci xel bu baax innahu li kitaabun aziz téere la boo xam ni neen du ko jóge ci kanam du ko jóge ci gannaaw ay la ko fi jiitu woon amul benn preuve buñ mën a sukkandiku ba ne alquran bi li mu wax du dëgg lu àdduna yàgg-yàgg jusqu'à la fin des temps du ñu demee dem ba mujj ñu gis dara luy wane ne lii kat wane na alxuraan du dëkk bokk ndax loolu am na amul alxuraan li muy wax ci mbir science kenn xamul lu ma toll suñu borom mi ngi génne ay science comme ni ñu koy nar a jàngee ci kanam amu ci benn découverte scientifique boo xam ne tey borom xam-xam yi yégg nañ ca lu dul luy dooleel ne alxuraan ci yàlla la jóge la waaye abadan du am mukk loo xam ne lu koy contredire la borom boobu nag subhanahu wa taala ni li waral lii ki ko wàcce mooy alxakim ki nga xam ne moo xam lépp moo xereñi lépp lu nekk la mu war a tege xam na ko ki nga xam ne it xéewal yépp ci moom kese la jóge loolu moo tax xéewal gi gën a màgg gam wàcceel ci ay jaamam mooy tiiram bu màgg bi nga xam ne mooy tax ñu texe àdduna texe àllaaxira yàlla nañ ci yàlla boole ci texey googee
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد barakallahu fik suñu borom mu ni yow yonent bi day maa yuqaalu laka duñu wax ñeel la illa ma qad qiila li rusuli min qablik loolu la nga xam ne waxoon nañ ko ñeel yonent ya la jiitu inna rabbaka la zu maxfira sa borom yàlla day borom njëggal la wa zu iqaabin alim waaye borom mbugal yu tar la walaw ja'alnahu qur'anan ajamiya bu doon alquran ji dañ koo def alquran joo bokkul ak làmmiñu arab arab képp ku waxul arab danaan ajami la la qaalu lawla fussilat ayaatu kon doon nañu wax ana lu teewam ñu teqale ay aayaam a ajamiyun wa arabi ndax waxi keneen ku dul arab la ñuy jël di ko jox yonentub arab qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa ne lii day alquran ji ñeel na ñi nga xam ne dañoo gëm njub la ak lu leen di saafara walladina laa yuminuun amma ñi nga xam ne gëmuñu fi aazaanihim waqru dana nekk ci seen nopp ya lu diis wa huwa alayhim ama ca lool day nekk na ci ñoom loo xam ne lu ñu ca gumbala ulaika yunaadawna min makanin baid ñii day ñi ngi leen di woowe ci place bu sori wa laqad aatayna muusa alkitaab faxtulifa fiihi jox nañ muusa alkitaaba faxtulifa fiihi ñu daal di wuute ci téere boobee jox nañ ko téere teewul dañ caa wuute woon walawla kalimatun sabaqat min rabbik bu dul woon a kàddu goo xam ne jiitu woon na jóge ci sa boroom la qudiya baynahum kon doon nañ àtte seen diggante wa innahum la fi shakkin minhu murib waaye ñoom de ñi ngi nekk ci ak sikk sàkka ci alquran gi murib nekk ci aji tar sikk sàkka man amila salihan fa li nafsi képp ku jëf lu baax ñeel na bakkanam wa man asaa fa alayha ku def lu bon dana dellu ca bakkanam wa ma rabbuka bi zallamin lil abid sa borom yàlla nekkul koy tooñ ay jaamam mi ngi noonu bokk suñu borom day wax yonent bi alayhi salaam duñu la wax lu dul li ñu waxoon yonent yi jiitu lan la yàlla waxoon yonent yi jiitu samay ndégale ngi nii képp koo xam ne nangu na koo topp danaa ko jéggal tabbal aljanna képp koo xam ne moy na ko dinaa ko mbugal tabbal ko sawara ñaar yooyu la jullit war a gëm sunu borom borom njéggal la borom mbugal la lu bari ci Sénégal nag dañ naan yàlla soxorul naam mbokk yàlla soxorul waaye kilifa gu tedd la gu kenn warul mooy ay ndigalam looloo tax ba ku ko mooy dana la mbugal su ko defee ngay yaakaar yërmandeem ak njéggalam waaye di ragal mbugalam loolu moom mooy la nga xam ne nii wax nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte ne daan ci dégg it ne yow yonent bi lii la yéefir yi di wax lii rek lañ doon wax yonent yu jëkk ya fa in kazzabuka faqad kuzzibat rusul min qablik yonent yi jëkkee dañ leen weddi woon dañ leen a xasoon di wane yitte yow mi nga xam ne yaay waaraate gannaaw yonent bi ak waaraate bi nu mu mën a demee ca service ba la ca kër ga la fu mën a doon la nga xam ne dañ la koy wax di la ko saboote loolu lu normal la ndax ñépp ñi daan woote ci dëgg lu mel noonu rek lañ leen daan wax sunu borom yàlla nag subhanahu wa taala bokkoon na lu yéeféer yi daan wax muhammad kay lii mu wax ay arab waxi arab kese law nashaau la qulna misla hada bu ñu nekkoon ñu wax lu mel nii sunu borom ne moo ne day lii nga xam ne ni ñu ngi koy wax bu doon te ne ne damaa jël beneen wax bu dul waxi arab jox ko yonent bi mu ñëw di leen ko làkk kon lu ñuy jëkk a wax waaye na leeral li muy wax ni li ma xamuñu ci dara te loolu it mu lay wan na mbokk mucc yombul mooy lu doomu aadama lu ne mën na koo layal kii ñu ngi wax wax ji ñu comprendre ñu ne ñuy wax nit nit rek la suñuy wax rek la in hada illa qawlul bashar walaw shina walaw nasha la qulna misla hada ay suñuy wax rek lay wax léegi yàlla mu ne su ma jëloon beneen langue masalan bu jëloon yàlla jëloon ay wolof mu ñëw di leen lakki wolof dañ naan ci li ma xamuñu ko nañ leeralal li muy wax loolu la fussilat ayat dañ ko leeralal doonte ne aaya la yoo xam ne buñ ci yeggee toujours di leen justifier toogaay bi ñu toog fii mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na arab yi bu ñuy wàccewoon alxuraan beneen langue daañu wax nañ leen ko leeralal ci arab am déet loolu it muy wane ne chinois ya war nañ leen ko leeralal ci chinois lii di njaago ya war nañ leen ko leeralal ci njaago wala fussilat ayat donte ne it ngëneel bu rëy mi ngi ci ñeel ñu yàlla na yàlla def ko ngëneel bu àdduna ak alaxira te mooy ñun en tant que nit ñoo xam ne xamuñu arab ba pare yàlla wërsëgal ñu bëgg diine ji topp diine ji ba da ngay gis suñuy doom yoo xam ne baat bi gën a tuuti ci arab boo leen ko waxoon xamuñu ko xum rek xamuñu ko xum rek xamuñu ko waaye mën a jël téeram yàlla bi fatiha ba naa si tarilu ko lépp am déet wallaay day am mi ngi noonu day am ci Turquie day am ci chinois yi day am ci Sénégal yi boo xoolee concours yi am sur le plan international foo ne la doomu aadama yi di jóge ñoo xam ne arab xamuñu ci dara dara dara dara mais téereb yàlla bi mokkal nañ ko ni ñuy jullee xam nañ ko ni ñuy taayaa xam nañ ko ni ñuy defee xam nañ ko gëm yàlla loolu mbokk xéewal gu rëy la gu yàlla defal ku ko soppi ay jaamam moo tax suñu borom ni bu doon teel yéeféer arab yi ñoom daañu wax loolu laa fussilat ayat ah ajamino arab yi kii di arab ñuy wax di wax ak ñun loo xam ne ajam la suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ne nañu xam ne day lii day ñeel ne ñi nga xam ne dañoo gëm mu nekk njub ñeel leen ca mbokk mi ngi noonu alquran hudan la moo lay won fi ngay jaar ba mën a jaamu yàlla ka kay leeral mooy sunu yenent muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii mooy njëriñam hudan la waaye shifaa la la nga xam ne mooy feebari xol alquran moo koy faj lii di bokkaale ga iñaan ga rëy ga ngistal ga soxor ga ila axiri loolee la koy faj mooy alquranul karim doonte ne it yàlla def na ci muy faj jëmm te ngi noonu dana faj jëmm lenn ci sahaaba yi dem nañ ci benn dëkk ñaan leen lu ñu dundee lu ñu mën a reere waa dëkk bi bañ leen a fat yàlla mi def lu ko soob yónni benn jaan mu matti borom dëkk bi ñu def xar fu foofu yi ñu xam yépp waa ji bëgg a dee seen loxo ñu naaw nañ dem ca gaa yee laaj ngeen ba xam amuñu ko mën a lugg jaan biñ ñëwee kenn ci saxaaba yi jóg ne man kay mën naa koo lugg ñu ne ko ah ay ci mbokk mu ne da ngeen may jox nag géttum xar avant ma koy lugg de ñu ne ko amul problème mu ñëw tiim di jàng fatiha di ëf di jàng fatiha ci ëf yenn riwaay ñu ne juróom-ñaari yoon la ko jàng waa ji ne xefet jóg mel ne dara musu ko laal biñ ko expliqué mbir yi ni mu demee mun a daggaleen seen gétti ngeen jox leen bañ ñëwee saxaaba yi bëgg a fàdd di rendi mu ne hey déet man lii sama xalaat dong laa ko teg duñ ci rey benn gàtt ci demuñu laaj yonent bi alayhi salaam bañ ne dee madina laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi na ko waaw kan moo la xamal ne innaha ruqiya ne fatiha boobu day mot séddoo leen ci jox ma ci saa wàll gis ngeen ala kulli xaal kon mbokk mi ngi noonu ba nga xamee ne expérience yi ci borom xam-xam yi def moo dina ne nga am say métti sa yaram ngay jàng alquran di ca raay da doon loolu ayatul kursi la qul yaa ayyuhal kaafiruun qul wallahu ahad al falaq ak naasi loolee da ngay gis ne lu sax la loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko def am na leneen lu ci borom xam-xam yi dool di xatta borom xam-xam mu ahlu sunna yi doonte ne du dëppoo général moo di ne jël ndox jàng ci alquran naan jublu ci fajoo ku mel ni ibnul qayim jawzi nga xam ne bokk na ci ulama wu ahlu sunna yi gën a mag nee na feebar na ci makka amul médecin bu ko faj zamzam bi la doon jël rek di jàng fatiha di naan di jàng fatiha di naan mais dafa yëg feebar baa ngi wàcc di wàcc ba set wecc ci yaramam mi ngi noonu ala kulli xaal sunu borom mu ne hudan wa shifa doonte ne la gën a màgg la muy faj mooy shifaun lima fi sudur day faj feebar yi nekk ci biir dënn amma ñi nga xam ne dañoo weddi sunu borom mu ne ñoom alxuraan ji dafa nekk ci ñoom lënt ak silmaxa la ci ñoom ay duñ ci gise lenn lu baax duñ ca ràññee lenn lu bon waaye yow julit alquran lay leeral sangare bi baaxul jaaloo baaxul riba baaxul reñit baaxul amma yéeféer moom yoonum néew ci loolu huwa alayhim ama mooy dégg ko bañ koo dégg la ñeemele borom boobu subhanahu wa taala ne seen misaal mi ngi mel ni waa ji nekkoon tey Kaolack nga toog fi naan ko Modou da nga wax ba sa tub pour xottee ko ci du lu dégg am déet naka noonu it ñii ay arab yu leer nañu waaye alxuraan bi ñu jàng ci ñoom amul ci ñoom benn effet comme na ko suñu borom yàlla misaale borom boobu nag di dalal xoolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko du yow yaa jëkk a wax ñu weddi la du yaa jëkk a woote ñu wuuti ci say mbir yonent yàlla Muusa te mu nekkoon yonent bi gën a màgg ci bani Israil jox naa ko téere bi gën a màgg muy tawraat muy téere bi gën a màgg après alquranul karim teewul dafa am ñu ko gëm am ñu koy weddi te ña koy weddi woon ñoo ëpp kon nag yow boo wootee ñu weddi la loolu bu mu la metti mi ngi noonu sunu borom nag ne dafa am jig boo xam ne ca laa jigee ci ne mbooloo mu nekk waxtu sàngam laa leen war a faat gannaaw ba dig naa dig boo xam ne ca lay war a dajale samay jàmm atte leen bu dul woon ak looloo fi ñu weddee rek danaa indi sama mbugal ci ñoom waaye maa ngi leen di xaare heure boo xam ne ñu ngi fi ñëw loolu tax suñu borom ni lu bari ci nit ñi dañuy sikk sàkk ci loolu amma aaya bi ci mujj borom bi ni képp ko def lu baax boppam la ko defal ku def lu bon boppam la ko defal loolu it mbokk julit di maandu teg suñu borom subhanahu wa taala waaye dañuy gis ni bëri ci doomu aadama yi tey lan moo yàq seen diine mooy jàpp nañ ni seen caam day lam liggéey ñun ñëpp xaj nañ ci waaw loolu mooy lu baax lam def waaw léegi ñi nekk ci réew mi di def lu bon nag baa loolu yàlla duñ ko topp yóbbu ñu sawara déedéet kon mbokk la nga xamee ne mooy maandute réew mi nga dëkk day am na sëriñ su fay nekk def ci lu baax la ñuy gëm mooy lañ doon def ci lu baax ñoom la ñeel moolu réew mi it am na fi ñu fiy def lu bona bona bon la ñuy def ci lu bon ñoom la ñeel su ko defee ku nekk ci yow la nga xam ne moom lay xaar ëllëg mooy la nga defoon ci lu baax ak la nga defoon ci lu bon loolu nag suñu borom yàlla neen du ma tooñ mukk ab jaam kenn du def lu baax lu baax loolu ñu ñu réeral ko kenn du ñëw ëllëg ñu duural la lu bon loo deful sa borom yàlla du tooñ ca noonu mu bañee tooñ ci boppam noonu la ko araamale ci ñun yàlla nañu yàlla musal ci tooñante
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر وإن مسه الشر فيئوس قنوط ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ barakallahu fiik suñu borom mu ni ilayhi yuraddu ilmu saa ci moom la ñuy delloo xam-xamu bisu pénc mi alaxira wa ma taxruj min samaratin min akmaamiha du génn mukk benn meññeent ca la nga xam ne moo ko ëmb wa ma taxmilu min unsa amul benn jigéen it boo xam ne dina ëmb wala tada'u wala muy wasin illa bi ilmi lu dul ci xam-xamam wa yawma yunaadihim ayna shurakaa'i bam leen di woo di leen wax ma moom ana sama bokkaale ya qaalu aazannaaka ma minna min shahid ñu ne yàlla ñun de ñu ngi lay yëgal ne amul kenn kuy seede tey ne am nga kenn bokkaale kenn kuñ lay bokkaaleel wa dalla anhum ma kaanu yad'uuna min qablu noonu lay sànkoo la ñekkoon di ko woote ca bu njëkk wa dannu ma lahum min maxiis ñu daal di jort ne du leen ñeel benn muccuwaay laa yasamu al insaanu min du'aa'i al xayr doomu aadama du tayyi mukk ci woo la nga xam ne mooy aw yiw wa in massahu shar waaye heure boo xam ne aw ay dal na ko fa ya'uusun qanuut dana nekk aji kuy ñikki aji koo xam ne nii aji ko lott la ya'uus mi ngi gën a feeñ ca la nekk ci biir xolam ba qanuut ñàkk yaakaar boobee day dem ba feeñ ci jëmmam ja ba ku ko gis xam ko ca moom mi ngi noonu donte na ñaar yépp luy lënkaloo la wala in azaqnaahu rahmatan minna buñ ko mosalee nag yërmande boo xam ne dafa bawoo ci ñun yàlla min ba'di darraa massathu ca gannaaw lor goo ko daloon la yaqulanna haza li mu ne waaw lii nag moom ñeel na ma man ma azunnu saata qaima yaakaaruma àllaaxira aji taxaw la wala in rujutu wala in rujutu ila rabbi buñ ma delloo ci sama borom it inna li indahu lal husna dana ma ñeel ca moom la nga xam ne mooy ak njëkk falanunabbi'anna allazina kafaru bima amilu daañ xel xabaare ña nga xam ne dañoo weddi woon ci jëf yi ñu doon jëf gannaaw ba wala nuziqannahum min azabin ghaliz daañ leen mosal ci mbugal mu tar mi ngi noonu bokk suñu boroom day wax ne allaxira mi ngi ñëw xam-xam la boo xam ni musu koo xamal mbindeef jibril xamu ko muhammad alayhim assalaam xamu ko yàlla moo ko gardeel boppam nee na itamit xam-xamam boobu nga xam ne mu la jagloo ci bis pénc noonu la ëmbee lépp lu mën a doon ci asamaan ak suuf ak leneen du lu asamaan ak suuf mu ne xoolal meññeent yi gaa yi tey toolub dugub ñaata milliard de pepp dugub moo ci mën a génn moo gaa yi ñaata mooy meññ ci mango ci kaw suuf ñaataay meññ ci ñebbe gerte ci kaw suuf ñaati milliards de milliards ci ay pepp yoo xam ne day génn suñu borom nee na amul ci benn buy génn lu dul ci xam-xamam jalla waala ah mi ngi noonu amul benn buy génn ci lu xam-xam te li lay wan loolu mooy adduna yi bépp buñ daje woon bëgg a bind benn pepp dugub ndax dana sotti abadan kon pepp dugub bu sosu ci kattanu yàlla la amul benn buy génnul ci xam-xamam ñu ne benn nga mu ne jigéen ñiy ëmb amul benn jigéen buy ëmb lu dul ci xam-xamam dañ ngeen ko yàgg a déggee doomu aadama la nga xam ne mooy jóge ca ko góor jëm ca ko jigéen daan jege lu jege ay soixante dix millions ci ay mindaafam sunu borom yàlla jaarale leen aw yoon yu ñu war a dem nar a fekki benn ca la jóge ca ndaw sa millions yooyu di dem di jëkkante da ngay gis lépp day dee ci yoon bi yii tag ci yoon bi ba la nga xam ne mooy jot a yegg ay cent la ñu doon saa yooyu bu ñuy wërli la nga xam ne mooy jóge ca soxna sa suñu borom yàlla benn bën bën la cay def boo xam ne benn bu ci xisee ba dugg rek mu daal di fatt wala mu soob yàlla ñaar dugg wala ñetti dugg ça dépend ci ndaw sa lu mu war a jur gaa yi loolu bu dee yéeseel yi nga xam ne yàlla won na leen ko lu ñuy wax mooy avec le hasard et la chance loolu la ñuy wax mooy avec le hasard et la chance nga gis ne ah def noonu donte ne la des fois ñu ne la parcours bi muy jógee bi muy jógee ci buntoo fa ñuy sottee ko ak fa ñuy yegg effort bañ cay def bu doon dañ ko méngale doomu aadama dana mel ne doomu aadama bëggoon a dox suñu digganteeg weer ba gars yi kan moo guidé spermatozoïde boobu nga xam ne nii buñ ko isolé woon il faut ñu multiplier ko des millions de fois pour nga mën koo gis yàlla jaaroo ko fa mu ko war a jaar ba mu dem fa mu ko war a dem ba loolu sosoo ca ba doomu aadama mën caa créé ci processus boo xam ne nii kenn xamul suñu borom mu nekk sama xam-xam la am déet nee na it wasin nga sama xam-xam la te ku gis doomu aadama fa muy jaar ba génn nga xam ne yàlla ko yombal di am déet summa sabila yassara borom boobu nag jalla wa ala nii ñii nga xam ne nag ñoo yëg lii ba pare di bokkaale ca ñeen ko dul yàlla yowmal qiyaama yàlla dana leen dajale ne leen waaw ana ñi ngeen ma doon bokkaale su ko defee ñu ne ah yàlla tey de ñi ngeen a yëgal amul kenn ko mën a taxaw di seede ni am nga kenn ko bokkaale ak say jaam gaa yi mbir mi fii la yem de ñu ngi noonu sëñ nangam amul moroom ak lii jërëjëf nangam yépp fii la yem waaye bu ñu demee yowmal qiyaama lépp dañ ko delloo ko ko moom kan moo moom ngi suñu borom yowma la tamliku nafs li nafsin shay'a wal amru yowma idin lillah mi ngi noonu mi ngi noonu azam naka ma min ami shahid suñu borom yàlla mu ne nag keroog lay réer ci ñoom lépp luñ doon woo ca du yàlla keroog la ñuy am yaqin ay zannul yaqin ci ni tey benn mucc waay amul ay nal mafar mi ngi noonu kenn du mucc borom bi delluwaat ci àdduna nee na doomu aadama do doyle ci ñaan yiw gaa yi ndax gisagun ngeen ku yàlla may ba mu ne léegi nag doyle naa déedéet déedéet gis nga millionnaire bi ngay ñee wala moo la gën a bëgg xaalis fuuf i ngi noonu waaw waa ji toll ci ay cent mu ngi lijjanti cent nu muy def ba am mille ña am ay mille nu ñu def ba am million ña am million nu ñu def ba am milliard xanaa nga ne ku dem nag ba denc milliard war naa tudd noppalu nag déedéet keroog nag la gën a ngemb nag mi ngi noonu am na projet dix milliards léegi mi ngi noonu ba amoon dix milliards da ngaa projet cent milliards léegi mi ngi noonu laa yas amul insan do al xay lum am rek mu ngay bëgg la ne am maa nag suñu borom nee na heure boo xam ne lor dal na ko lor ga lu mu tuuti tuuti tuuti la ëpp ci ñoom da ngay gis dañuy daal di ñikki jàpp ne dootu baax mukk jàpp ne dootu baax mukk borom boobu subhanahu wa taala nee na bu ma indee yërmande bu bawoo ci man gannaaw lor ga ko daloon mu ne ah voilà lii moom yeyoo naa ko yàlla xam ne na man ko yeyoo nii laa alaxira bi ñuy wax gëwuma ko waaye benn ma fa demee it ni ma yàlla terale ci adduna dana ma teral alaxira xoolal wax ji mbokk gëwuma ne alaxira am na waaye même bu alaxira amee it ni ma yàlla terale nii ci adduna su ma demee dana ma teral alaxira la in rujutu ila rabbi inna li indahu lal xusna mbokk suñu borom nee na yowmal qiyaama ñooñu jëf yooyu dana leen nettali liñ nekkoon ci àdduna mbugal leen mbugal bu tar kon lan mooy pexe jullit moom dëgg mooy ki suñu borom yàlla wax ci làmmiñu yonentam ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu lahu xayr jullit moom mooy ki nga xam ne heure bu yàlla tegee ci moom xéewal day sant jàpp ne alhamdulillah mi ngi noonu jàpp ne yàlla baaxe na ko mu safaanoo kay nga xam ne boo amoon ay milliards yi day jàpp ne amagul dara gis ngeen amma bu yàlla tegee ci moom lor lor ga lu mu mën a doon wér gi yaram la yàlla jël alal la yàlla jël njaboot la yàlla jël day muñ muñ gu rafet delloo lépp boroomam lépp nekk yiw ci moom moo tax borom boobu subhanahu wa taala ni lii mooy la nga xam ne nii mooy xaar nit ñi yowmal qiyaama incha allah ñu yeggale ak Cheikh Ousmane وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط
jazakallahu khairan suñu borom mu ni wa ida an'amna ala al insan ñun yàlla bu ñu xéewalee ci doomu aadama arada mu daadi dummooyu wa naa bi janibi beru ji ca ak wetam wa ida massahu charru waaye fu ko lor dale laale fa zu du'ain arid mu nekk aji ñaan goo xam ne gu gudd la gu yaatu la qul araaytum in kaana min indillah neel ma ndax bu dee ne alxuraan ji nekk na bawoo ca yàlla summa kafartum bi ngeen wëlbatu ko yéen weddi ko man adallu mimman huwa fi shiqaaqin baid ana ko gën a sànku ci ki nekk ci juuyoo goo xam ne gu sori la ñun yàlla sanurihim ayatina fi l afaq dañ leen won suñuy kawteef ci gox yi wa fi anfusihim won leen ko ci seen bakkan yi xatta yatabayyana lahum annahu alxaq bam leer leen ne alquran ji dëgg la awalam yakfi bi rabbik ma ndax doyul ci sa boroom annahu ala kulli shay'in shahid ci na moom day lépp muy aji ku koy seede ala sunu mag ba aboubacar jazairi yal na yàlla sàmm ko nee na mooy allo ala allo innahum fi miryatin min min liqaa'i rabbihim ñoom day ñi ngi nekk ci sikk sàkka ci dajeeg seen boroom ala déedéet la am kay innahu bi kulli shay'in muhit seen boroom yàlla mooy ki nga xam ne bépp mbir moo ko fekk ci xam-xamam bokk suñ boroom day feddali li mu waxoon sànq nee na doomu aadama yi ay mang ca jublu la ëpp ci ñoom su dee yàlla da leen a xéewal dañuy daal di dummooyu ndigali yàlla daal di bew dootuñu faale ci kenn te loolu mbokk day am xattaa ci lu bari ci ay jullit da ngay gis ne su yàlla sëppee ci ñoom ay xéewal dootuñu bëgg a jege baadoole yi dañuy bëgg a beru ci seen bopp masalan almadi am nañu fa dëkk ñoo xam ne ñoo ma gën fuuf waaye da ngay gis lu bari ci ñoom da ngay gis ñu ngi juddoo ci àll ba ci néegu ñax ya ñëw ndakaaru yàlla maña leen au lieu ñu toog ci seen biir mbokk di leen dimbali di leen xëccali da ngay dem jënd këru mille mètres carrés investir fa lu jege un milliard ca gars yi jaaxoon ma de lu jege un milliard wala lu ëpp un milliard loo xam ne mille borom kër mën nañ ci am fu ñu dëkk yow nga jël ko dëkke ko ay piscine ay kenn xamul yaag sa benn ñetti doom bu ko defee nag da ngay gis foofu kenn du la fa fekk si ñu ngi noonu gan mbokk du la ñemee ñëw foofu naan dafay fanaan déedéet la fa nekk ci gardien yaag yu gën xamul déedéet loolu bu ko defee lan moo ciy tegu doom yi juddoo ci foofu bu leen yàlla dimbilu rek ay yéeféer la ñu doon ñu ngi noonu parce que amul jàkka amul gis dara la ñuy gis mooy leneen ak leneen almuhim lañ ci bëgg a wax mbokk mooy bu la yàlla xéewalee santal yàlla àndal ak nit ñi loolu mooy tax nga mën a gis xéewalug yàlla waaye am na yenn situation xam ne boo cee féetale sa bopp doo sant mukk ndax loo bari la bari la gis ku la ëppale sa wet am déet almadi loo bari la bari la balaa ñetti weere nga gis ku la ëppale kër goo tabax balaa six mois nga gis ku la dàqale su ko defee yooyu mbir la yoo xam ne dañ ko war a moytu di dugg ci jurit ñi yeneen bi alayhi salaam gis nga lim ñuy wax julli gi nga julli sa kër boo ñëwoon ci mbooloo mi gën na ko ñaari fukki yoon ak juróom-ñaar am déet jaxasoog doomu aadama yi xam ne jaamu yàlla nga ci biir jaamu yàlla nga innani minal muslimin di jàng nañ ko àllarba bi passé li nga noonu am maa suñu borom nag nee na li ëpp ci nit ñi su ma leen xéewalee ñu beeru bew mi ngi noonu am maa bu dee nag lor moo ko dal mu delluwaat ci yàlla ak ñàkk jom am déet mi ngi noonu bu dee lor moo ko dal na nga delluwaat ci yàlla di toroxlu di ñaan di toroxlu di ñaan donte ne am na ci ñoo xam ne loolu sax léeg-léeg mu sauvé leen am na ci ñu bari ñoo xam ne ñàkk gañ deeyaale mën na mu leen di tabbal àjjana am déet mi ngi noonu léeg-léeg gis benn waay boo xam ne bi muy am faaliwul nit koy dund ci kaw suuf faaliwul diine mais yàlla teg ko mu ñàkk mu delluwaat ci yàlla ndax yàlla moom ñëpp ci xaj am déet jàkk jaa ngi nii ñëpp ci xaj mi ngi noonu su ko defee fa nga daan dem ñu lay màggal boo demee ñu lay ciifat boo ñëwee ci jàkk ji moom ñu la bisimilah yaa ngi dégg ñu bëri da ngay gis loolu moo leen moo leen sobe almuhim suñu borom nee na bu lor ñëwee moom nga daal di gis ñaan ya takkar naa sa dar dellu ci yàlla borom bi nag bàyyi loolu daa dina mën a xool leen su dee alxuraan jii ngeen di sikk sàkk bu dee ci yàlla la jógee nag kan mooy ki gën a sànku ci ki nekk ci juyee gu mag te mbokk yi firi arab yi amuñu woon yaqin ci ne Muhammad li mu wax du dëgg dañ ciy sikki sàkke woon innahum la fi shakkin murid comme ni ñu koy nar a jàng ci kanam suñu borom na waa bu dee dëgg la nag am na lu tubaab yi di tuddee ngëmu Pascal ñu ne Pascal kenn ci seen borom xam-xam yi lu mu daan wax nit ñi waaw ñii ne nañ alaxira am na nañ ànd ñoom gëm alaxira am na suñ demee alaxira am ah lañ fay am ñu am ko bu dee amuñu du problème ku seer rek la ñuy doon yaa ngi dégg waaye mbokk gëm googu baaxul suñu borom mu ne wa hum bil axirati hum yuqinuun dégg nga suñu borom mu ne waaw lii ngeen di sikk sàkk di ko weddi waaw bu dee dégg la nag kan mooy ki gën a sànku ci ki juuyoo ak boromam subhanahu wa taala waaye sikk sàkk boobu ñuy def borom bi na baax na dinaa leen woon samay kaawteef ci gox yi ak ci seen bakkan yi kaawteef boobu daan ko firee dimbal ga yàlla dimbali yeneen ci yàlla bi dooleel ko mu gàññi leen ca Badr ubbi Makka ba ñoom ñëpp dañu gis wala bëccëgu di dugg ci diine yàlla ji afwaaja atara naas yadxuluuna fi diinillaahi afwaaja ndax xam nañ ne kon lii mooy dëgg ndax yàlla wan na ko preuve doonte ne lu ci gën a yaatu li sunu borom ne fil afaq ay ci gox yëpp la te loolu day valable bi ila yawmi diin mbokk ñun tombe nañ ci ak loo xam ne sunuy bàyyi amuñu ko woon jamono ji ñuy toll mooy jamonoy science te science bokkul ak tappale mooy la nga xam ne bu xisee ba feeñ russe beeg chinois beeg africain ci yem dañuy xam ne les preuves scientifiques la tey nag alhamdulillah bañ demee ba science tasaaroo ci àdduna la ñu gis ay téere yu bari ñu bind ko les preuves scientifiques du Coran les mille vérités scientifiques du Coran le soleil de la brise sur l'Occident ay yeneen milliers de milliers de livres yoo xam ne ay scientifique ñoo ko bind ca lépp lan moo ci wane mooy alquran ji laa rey ba fii sikk amul ci na ci yàlla subhanahu wa taala la jógee baram boobu nag subhanahu wa taala mu ne dinaa leen ko won ci gox yi won leen ko ci seen bakkan yi ndax sa borom yàlla mooy ki sédde lépp mooy ki xam lépp mooy ki nga xam ne nii ñii sikki sàkk ne dañ dajeeg moom sunu borom mu ni moom day mooy ki leen peek ala innahu bi kulli shay'in muhit moo peek lépp ci xam-xamam moo peek lépp ci kattanam looloo tax kenn du ko mën a rëcc te it kenn du mën a lay ba wax loo xam ne bokkul ak la yàlla subhanahu wa taala seede ci yow yàlla nañu yàlla boole ci jaamam yi ko gëm yàlla nañu yàlla boole ci jaamam yi ko déggal yàlla nañu boole ci ñam yi tabbal aljanna bila xisaab wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad ala kulli xaal ay problème mu bébé pour vet loole mooy doom yi nga xam ne sosoowul ci sëy normal bari na ci ay façon yu ñu koy defee am na ci ñoo xam ne beneen jigéen moo koy ëmb suñu paree génne ko ëmbal ko soxna suñ bëgg mu wasin ko la nga xamee ne nii moo ca mën a nekk la ca dagan mooy lu ñuy jëlee ci jëkkër di ko yóbbu ci jabar loolu la mais du mënuyu mooy du duñu ne dañuy jël lay jële ci beneen góor di yóbbu ci jigéeni jàmbur wala lu ñuy jële ci beneen jigéen di yóbbu ci góoru jàmbur wala lu ñuy jël ci jëkkër ak jabar di jox keneen pour kookee di di di ko ëmb ko wasin ndax yépp yu am la la nga xam ne moo ca mën a nekk mooy lu ñuy jële ci jëkkër di yóbbu ci jabar ci pexe yañ ca mën a def mu des nag lor ba nga xam ne mooy yegg ci doomu aadama yi di dem ba keneen koo xam ne ni du jëkkër ji mooy tiim soxna si di am lu muy def ci ay awraam mbir la yoo xam ne nii loolu moom lu compliqué la dañ koy delloo la nga xam ne borom xam-xam yi ala kulli xaal bu doon te ne jëkkër ji moo am pexe moom pour mën a def loolu la chaque ne dara nekkul ci loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam waaw bismillah ñu bàyyi ñeneen ñu mos rek ba kii waaw bismillah waaw waaw imam su ma jiwul ak li passé dama déggoon nga ni dama déggoon imam que ni aar bi koo wax di nga am ñaar fukki tiyaaba léegi li ma bëgg a xam mooy ah nga précisément léegi ñaar fukki tiyaaba dafa yem ci juróom ñaari tiyaaba aar bi wala fekkee par exemple da nga def leneen da nga def ay yëf yu bari wax téeméer aar bi est-ce que dañu multiplier par vingt wala non amin waaw waaw waaw waaw bu ma nee xaamim loolu tënkuwul ci xaamim kese xaa gi nga wax rek fukki tuyaaba la miim fukki tuyaaba la alif laam miim fanweeru tuyaabaa ngi noonu loolu mooy mbir mi ay bépp xarf boo jàng ci alquran am nga fukki tuyaaba loolu tënkuwul ci xaamim wala lu mu mën a doon damay ak baax damay xamal ne aar bi ci boppam soo ko ci xotee rek da nga am vingt vingt tiyaaba loolu am loolu waaw loolu am na mais dama ne la yemul ci xaamim mi ngi yem ci lépp lu aju ci alquran bis arrahman arrahim alhamdu lu mu mën a doon malik lu mu mën a doon lépp la bokk ci alquran ah lettre bu nekk fukki tuyaaba la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam ñi nga xam ne dañuy jël alxuraan def ko liggéey di ci feye ko xaalis ala kulli xaal mbokk loolu mbir la bu ñu dab boo xamee ne nii suñ maam yi sax da ngay gis ne wallahi boo xoolaan trente ans ci gannaaw quarante ans ci gannaaw man de xawma ko woon Sénégal amoon nañ luñ daan faj mais li ñuy tuddee courant thérapeutique yi yéen a ngi dégg loolu de mooy léegi koñ boo dem ci Ndakaaru am na ku fa nekk ne day mocce ci alxuraan di faj ci alxuraan ñu ñëw ñu laaj ay cent mille ay cent cinquante mille ay yu kenn xamul loolee day sahabatul kiram amu ci kenn ku ñu xamoon ne loolu mooy liggéeyam amul sunu maam yi kenn koo xam ne dañu gisoon ne daa toogoon loolu nekk ab liggéeyam nit ñi ñu ngi leen di faye ay aaja ay nangam lu ci bëri dañuy lekk alalu nit ñi ci neen doonte ne ne la chaque ne alquran mënees na caa moccal nit ki mu wér mais la ca yeneen ci bi alei salaam doon wax ku mën a laaye biir mbokkam jullitam na ko ci laaye biir amma façon bii ñu koy defee ci Sénégal te léegi-léegi it am ñeneen ñu koy def ci feneen loolu mbir la boo xam ne bu bees la dab lislaam ñu ngi ñaan képp koo xam ne yaa nga ca rawatina ñu cay féetewoo di tuddoo ahlu sunna nga la waay ñu ragal yàlla bàyyi xel loolu gis naa fi ay ñoo xam ne nii som yu bari bari laaj nañ leen ko ca teewu lañ doon faj dara faju ci loolu ñu bàyyi ci xel bu baax wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon mbokk yi ma des na yem foofu di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla saafaral ñu suñu jàngoro yi xol yépp saafaral ñu suñu jàngoro yaram yépp wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad